yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ci ñaari baat yooyee la l'observateur tënke xew démb ci réew mi booy ubbi journal bi ba ca page katam di fa gis ay nataal yu bari yuy wane li amoon démb ci ndakaaru Ousmane Sonko mu sàndarma yi jàpp di ko dugal ci seenu wata ay militant ak i manifestekat yu ñu di leen yóbbu ay jeunes yu taxaw di sànnante ay xeer ak i joorante lacrymogène ak i takk der ay station essence ñu taal ba ñu tàkk jëppéet ay magasin au ñuy wax li xew démb ak na mu njiital parti Pastef di Ousmane Sonko moom le juge d'instruction bu huitième cabinet bi convoqué ngir waroon ko auditionné ci tuumay viol ak de mort gi Adji Sarr gàll ci ndoddam Ousmane Sonko waroon ko wuy ji xëy ànd ak gàngooram jógee ca këram ga ca cité kër góor gi jëmoon tribunalum Ndakaaru bi ñu yegsee rond point Estelle Mermoz bëggoon jël awoon yi Cheikh jaare buntu université préfet bu Ndakaaru taxaw ne Sonko dugal ko ci benn watab gendarmerie yóbbu section recherche tuumay turbale ordre public bi ak bokk ci manifestation gu ñu leen joxul ndigal yéenekaay bi nee nañu loolee la ñu ko gàllanay tuuma ba jël ko yóbbu vox populi nañu ba ñu ko jàppee ba yóbbu ca la jàmm jeex ci dëkk bi amul nu manifestekat yi salfaañewul dëkk bi xeex nañu fi yàq nañu fi taal nañu fi jàpp nañu ñu bari ci ñoom ñu doon manifester àllarba juñul kukk vox nee nañu moom la ñu dund démb àllarbay ne yu bari ci dëkk bi essayé nag journal Le Quotidien nee nañu moo di boutique Auchan yi ak station essence Total yi yéenekaay bi nañu démbit gis nañu ay ngan di ponkali nit yu wàccoon ci mbedd mi ak seeni gourdin doon jàppale takk deri ci seenub liggéey li manifestekat yi liggéey démb ci dëkk bi enquête yéenekaay seen dakawoo la ko ba noppi di ñu netti li bésub démb beek ni mu demee li fi am ci fitna am ko fi ci yàq ba yegg ñu it kàdduy ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome muy xam le ndax dégg nañu ko muy joxe ndigalul ñu Mermoz Sud Quotidien nañu coowal mbës mi salfaañe na Ndakaaru démb dem nañu ba dégg préfet bu Ndakaaru mu naan yi nañu gaase journaliste yi mu di lool yéenekaay bi ne nañu convention des jeunes naqarlu nañu ko ñaawlu nañu ko am nay journaliste yu ca jële ay gaañu-gaañu ba ci benn caméraman bu nekk OSTV Sud nañu bi mbir yi tàmbali ëppi loxo l'armée bi di soldat si le gouverneur bu Ndakaaru woolu ngir ñu ñëw renfort Walf Quotidien dëggal xibaar bi ci ñu yàq lu ne la ñu caxat-caxate wane seen bopp wane seenu mer te yëf yamul woon rekk ndakaaru yegg na ba ca ndar ak ci Sigicoor sursoi nañu Ousmane Sonko ba ñu ko yóbboo démb gendarmerie war ko auditionné ñeppiwul gémmiñam benn yoon dafa meloon ne muuma libération nañu noppi la def neewul mbuu neewul mbaa bi koy awakaam di wax sax li mu leen ci tegal moo di dafa yomb torop journal bi nañu gendarme yi bi ñu koy laaj nu mu tudd ak it mu wax leen ubbiwuñu seen gémmiñ benn yoon ubbi leen source wa yéenekaay bi indi nañu ay leeral leeral yi moo di moom Ousmane Sonko coowal mbës mi taxoon ñu woolu ko waroon ko auditionné ba lii lépp xew ci léegi nag bala koy gis bi di mën a woowaat in fokk da koy joxaat beneen convocation ngir mën ko auditionné ki ñu woolu woon démb auditionné ko di Ndeye Khady Ndiaye borom salon bi di Sweet Beauté L'Observateur nee nañu ci contrôle judiciaire ci la mujj waaye gis bi nee na ko li fekk yoon parewul ci yëf ba yëf yi jeex bu ma la déggati nga wax ci en public nee na koy weer wu nekk àjjuma jëca njëkk na nga ñëw fii tribunal signé comptoir commercial diplôme